ñu wax la sunnay koor bokk na ca gaaw a dog bu ñu allahu ba rek naanal wala bu jant bi soxee la ngay doge na nekk lu tooy na nekk tàndarma walla ndox moo gën de mën naa nekk bu fekkee tàndarma la na nekk ñett wala juróom wala juróom-ñaar na tool daal fonkal ñaan ga itam allahuma lakk sumtu wa ala rizqika aftartu fa taqabbal minni innaka anta samiul alim am na geneen ñaan allahuma inni asaluka bi rahmatika allati wasiat kulla shay'in an taghfir li dunubi geneen ñaan goo man defal bokk na ci yin bëgg lool te mu nekk sunna mooy xëdd xëdd mooy nga lekk dara wala nga naan dara loolu itam lu am solo la yunte nee na di leen xëdd ndax xëdd dafa am barke bokk na ci yéex a xëdd itam ndax diini bugg laa sonal xam nga boo xëddee trois heures du matin loolu mën ngaa sonn xëdd fan la tàmbalee boo xaajee guddi gi ñetti xaaj ba mujj ba foofu la tàmbalee fan la yem eh, lu jiitu fajar quelques minutes lu foo mën a jàngee juróom fukki aaya daal noonu la